tenn sii moom la Dabaay woote muy vente euh, muy deuxième édition bi mu nekk loo xamante ne si macha allah képp koo xamante ne femme brave nga képp koo xamante ne si ku nangoo liggéey nga mu ne la ñëwal tey jii bokk ci li nga xamante ne si mooy kaay ma jaay la naka nga gisee initiative ah initiative bu baax la parce que nga dajale jigéen yëpp bëgg promouvoir entrepreneuriat féminin bi donc duñ def lu dul saluer initiative am di ko encourager di ko féliciter voilà li nga xamante ne si moom la woote tey moo te ku xam jigéenu Sénégal xam ne macha allah xale yi kenn toogatul ñu ngi créé bu dee màdd ñu ngi koy jaay bu dee gejj gi ñu ngi ci ba ci yow mii taxaw ñu ngi lay gis ngay jaay yoo xam te ne si macha allah naka nga gisee femme sénégalaise. femme sénégalaise yi elles sont braves parce que léegi xam nañu jigéen toppatoo sa kër neex na waaye nga jub jàppale sa jëkkër aussi dara daaxu ko donc muy célibataire yi comme femme mariée donc na ñëpp jub liggéey. parce que liggéey rek ay fay voilà. ba pare gëj nañ la gis li nga xamante ne si moom mooy série yi nag fan nga nekk ci loo nekk fan si yaa ngi lay laaj. non mais commencé waat naa dama doon reposé wu la temps que bébé dëgër mais léegi maa ngi ci entreprise ah, entreprise saison 2 nekk aussi ci kër bàyyi ma Mangone bi waaja daw ci Sen TV incha allah voilà. naka nga def ba bokk ci li nga xamante ne si moom mooy en emprise. parce que gis nañ ni tamit euh, yaa ngi woon fi nga xamante ne si su ma juumulee mooy Pod et Marichou tey dañ la sentiraat ci li nga xamante ne si moom mooy emprise daal la ci. waa réalisateur bi moom moom moo wóolu rek donc xam nga peut-être daa daa gis peut-être sama profil intéressé ko mu wóolu ma donc voilà laa déggee. waaw ci lan la empare euh, emprise ci lan lañ la mën a xaaraat. maa ngi si kër Baye ma Ngoné donc euh, buy waaj a am sur la Sen TV incha allah tey si boppam la def plateau de lancement bi. donc na ko ñëpp xaar incha allah. voilà ah, fay naa leen ñi ñi la nii waa waa Sénégal 7 maa ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay maa ngi sant yàlla alhamdulilah maa ngi nii maa ngi maa ngi ci maa ngi ci maa maa ngi sama coin quoi maa ngi sama coin waaw. tey lan moo waral teewaay bi fii ci bisu dabaay bi muy kaay may jaay la woote vingt ans. tey nag man li ma yëkkati yombul xam ngeen ni du ma dem fépp. du ma dem fépp waaye dabaay dafay sama jigéen di sama xarit ah mu fonk ma lool dabaay lu muy def dafa may woo téléphone dabaay lépp lu mu xewlee dafa may daf ma yëg daf ma yëg moo tax yëg boobu noonu man aw ma lenn lu dul delloo ko ko moo tax lu bu xewlee lu mu xat-xat du ma la nëbb studio laa waroon dem mais dama ne nu mu xat-xat damay ñëw ci dabaay ba mu gis ma ba pare ma doo koy dem parce que nit amul lu dul ku ko fonk ak ku ko yëg man dama man fa man soxla ma dara mais man boo ma bu ma yëgee rek mooy rey nga ma te dabaay daf ma yég jox ma sama cër moo tax man dabaay rek laay topp man dabaay lu mu xewle dama maa ngi ci biir lu lu dabaay xewle maa ngi ci biir maanaam man nit dafa soxla yëg-yëg man dabaay rek laay topp budul woon moom du ma ñëw fii moo ma fi indi moom kese la moo tax dama ñëw rek tàllal ci moom waaw ku ne may woo nag mais man ci moom laa tàllal. moo la fi indi daal. parce que moom laay topp topp ma keneen. mais naka nga ko gisee mu nekk jigéen bu brave nekk femme jàmbaar taxawal li nga xamante ne si mooy Kayma Jaay la nekk deuxième édition woo ci képp koo xamante ne commerçante nga woo bépp jigéen xeebul képp kuy jaay moo xam jaaykatu marde bi moo xam jaaykatu géej gi moo xam jaaykatu ku manti doon woote liggéey nekk femme bu brave ban conseil nga koy jox. c'est une ba pare xol bee yaatu xol rafet parce que lii ku rafetul xol doo ko mën. boole ay doomu aadama xeeboo kenn loolu boo ko defee rek mooy yow am nga ndimbalu suñu borom dabay soxorul siisul añaanul xol bee rafet moo tax mu yaatal lépp moo tax ay mbiram day gën a kawe ngeen ne deuxième édition bi troisième édition incha allah day gën a fawxal yi ci kattanu yàlla bi jaahi rasulaay barki borom Touba incha allah ci loo nekk nag gëj laa gis. maa ngi ci album bi maa ngi nuyu sama producteur Mbacke Dioum. pare naa daanaka ay finition rek a ci des incha allah ma génnee leen lu bees li ma lalu yëpp boo leen déggee dëgg dégg dëgg bu album bi génnee ngeen xam ne ay way maa ko mën. merci. Moda Baye suñu rakk la suñu soxna la suñu suñu suñu xarit la comprendre nga doon jàmbaar euh, def Kaay ma jaay la première édition mu nice mu def deuxième édition bi yaatal ko gis nga ni mu ko yaatalee et puis wane ne góor baax na jigéen baax ah koo xam ne nag yaa ko war a jox yaa ko war a yor bu nekkee di jéem pour pour pour defal boppam li la war rek mooy nga jàppale ko. donc loolu mooy suñu présence loolu mooy suñu ay jéego ci ci programme bi ba pare li ma ci gën a neex euh, ni ngay gisee xale yi di góor ah mooy que ne li fi ne ci bagage yëpp. bu ñu amul occasion bu mel nii pour jaay ko fan naka la ñuy def ah muy initiative bu nice ñu koy féliciter di ko ñaanal mu bañ fi yam quoi parce que lii du lu ñu war a def sax at baat lii euh, bagage yi xoolal ni mu bëre mooy que ni ñu ngi ci kër yi toog te dañ ko war a jaay ah nañuy fexe di def lu mel nii tous les trois mois ah gars yi jàppale leen ñu leen mën a jàppale jàppale leen ñi nga xamante ne ñu ngi ñu ngi ñoo jiite réew mi na ci. ne ci bërëb yi yor yor financement yi finance xale yi jàppale leen xale yi dem nañ ba ñoom sax dañuy jaayante ci seen biir xam nga loolu loolu yombul donc li ci war rek mooy képp kuy sénégalais jàpp ci képp kuy autorité jàpp ci képp kuy responsable ah ak kilifa yi nga xamante ni ñoo ŋànk réew mi ñu jàppale leen ndax nag euh, li ngay dàq kéwél mu jëm àll nga dàq ko mu dem ci kër gi da ko gën te jigéen ñi nag ñooy ñooy ñooy réew mi quoi waaw ñooy réew mi. Grand ko gisee day mel ni xel day daal dal parce que fi ne nii yaakaar naa ni benn jigéen toogatul parce que boo xoolee lii damay taxawal rek tey mun naa ni euh, bu dee 100 la 99 yëpp jigéen ñi la yaakaar naa benn góor dong moo fay rax tey lan ban ban ban ban conseil ngay jox tey femme sénégalaise. mais mais fii góor amu fi ñëpp ay jigéen lañu góor ñi ñëw ñu sax jënd nañu ñëw di jënd. boo jëndulul sa bopp sax nga jël sa soxna tam am dafay bagage su góor donc na gars yi ñëw jàppale xale yi jigéen ñi jigéen ñi dañu am jom xale yi dañu am jom dañu dañu dañu jàmbaare ay Yaasin Buubu laa fi gis ay ay Aliou laa fi gis ay jàmbaaru fàq tëdd laa fi gis ndax euh, mënoon nañu toog rek ne dañ leen war a yor mais dafuñu ko ñu ngi jug di voyager di indi ay bagage ñi ne ci réew mi di ñaw ah ñii di def cosmétique ñii di def tout genre de commerce nga fi gis donc mais gàcce ngalaama xale yi kenn du ñoom macha allah. ñu gis ko mu tuddee ko kilifa goo xamante ne si muy sunu yaay Soxna Baale naka nga gisee tamit loolu is Soxna Baale ñëpp ko sopp waaw di jàmbaar euh, sëñ sooy booy baayam sëñ sooy bu Seexul Xadiim ñu dénk ko sëñ Muntaxa borom mbégte mi mu jël ci liggéey baay maamam ji wàll wu yaatu yor ko bu poroxaan jotee nga xam ne Soxna Baale euh, Seexul Xadiim rek ko ñor. donc di jàmbaar jiite ay jigéen tubaarkàlla di seen yaay di seen bàjjen te lépp ci liggéeyal seexul xadim rek la nekk ñu fekk Touba mu teral ñu ah toppatoo ñu ñaanal ñu démb mu yób yabal délégation ñu jóge ba Touba ñëw ah ñoo tàmbali li nga xamante ni mooy Kaay ma jaale deuxième édition bi donc soxna Bali euh, euh, bés bii ñu ko jagleel yàlla bu mu fi am ah yàlla bi mu doon euh, première édition la ci soxna baali waaye yaakaar naa ne. dina dina dina ci saf sàpp ko dolli yeneen bis ndax mérité na lu ko ñu koy ñaanal yàlla dëgëral taxawaayam di ko sant di ko gërëm di ko remercier infiniment Mbacke Balla yàlla na jàmmam yàgg. duñ tëj te laaj ñu la waykat bi ane Waly. Waly il va bien mi ngi woon Italie mais na ñibbi si ah war na si mi ngi fi mi ngi ci jàmm baax a baax ci jàmm baax. lan lañ mën a xaar bu ñibbisee. ah la woon rek Waly moom mi ngi ci ci ci am maanaa yooyu rek moom ah mi ngi vogue mi ngi ah il a pas mal d'événements qui ont été annoncés et que xam naa ne dina ñëw bégal fans yi bégal sénégalais yi comme il l'a. jërëjëf.